man j'ai rien contre waa PDS mais xarit lañ ñoo bokk. c'est la même famille libérale ñoo bokk ADN. yéen a bokk ADN n'est-ce pas mais li ma wax encore en plénière ma waxaat ko dafa am yoo xam ne man loolu laa gëm. Mhm. li ma gëm mooy mbirum parrainage mbirum procédure électorale dafa am ay textes yu ko yu ko régir. Mhm. wax ko mu leer du dëgg. mbirum nation euh, exclusivité de la nationalité sénégalaise constitution moo ko réglé constitution ni mu ko régle c'est en son article 28 mm. on doit être exclusivement de nationalité sénégalaise ci même article boobu lay wax âge bi ci même article boobu lay wax affaire u casier judiciaire ainsi de suite boo demee ci code électoral booy déposer ce dossier tu fais une déclaration sur l'honneur mm-hmm. que tu es exclusivement de nationalité sénégalaise. loolu code électoral moo ne noonu nga koy bindee. d'après waa PDS monsieur Karim Wade def na ko. déclaration mhm, sur déclaration sur le lin mhm. Mhm. qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise. et j'imagine que candidat yëpp def nañ ko. y compris aujourd'hui madame Wardini bi ñuy wax. du dëgg. maintenant est-ce que si. euh, Thierno Alassane Sall le candidat Thierno Alassane Sall pas fait un recours spécialement sur le cas Karim Wade est-ce que le Conseil constitutionnel allait voir s'il est français ou pas mmh. c'est une question parce que pourquoi xooluñu yu yenn ñu ñeneen ñi xool bu Karim parce que bu Karim dafa am ku def recours du de tout à fait donc mu jël décision sur la base. de ce recours de ce recours. Mm-hmm. léegi mu ne Karim du bokk parce que ñoom gis nañ ne Karim il est pas exclusivement sénégalais au moment du dépôt des candidatures. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que li PDS wax encore mooy ne ñoom le 16 avant le 20 ils avaient donné le degré qui prouve que Karim n'est plus français. français. c'est un débat. c'est une interprétation des textes. Et en matière électorale, le dernier recours revient au Conseil constitutionnel. Mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. mais bu ñu weesoo loolu tey am ñu indi ay këyit ne madame Wardini moom tamit français la. Mm-hmm. française la. donc aujourd'hui le Conseil constitutionnel a déjà pris sa décision. loolu ci sama xam-xam bu gàtt ci droit. c'est trop tard mmh. par contre l'exclusivité de la nationalité sénégalaise est un fondement de la République si on aspire à être président de la République mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce qu'aujourd'hui on a le droit après avoir eu ces informations après que conseil constitutionnel joxe avis gëm parce que gis nga affaire affaire PDS bi. dafa am yu bëri yu mu soulever yoo xam ne c'est l'arbre qui cache dafa am yu bëri yu mu soulever non non je parle même pas de ay manigance man nekkuma ci man gëwuma loolu. non l'arbre qui cache la forêt non man gëwuma ko. non xam nga man juste que yeneen dinañ feeñ non non non man waxeewuma foofu. <laughs> yow yaa wax arbre forêt man xam nga lu ma gis dafa am yoo xam ne dañ ko war a gën a sécuriser. Mm-hmm. en matière de loi suñu suñu réew. ma jox la benn exemple. xam nga pour être électeur wala président de la république xam nga jour bi nga xam ne par exemple les dix-huit ans. Mhm. ak trente-cinq soixante-quinze ans yi xam nga effet bi fan la du jour bi ngay déposer sa candidature c'est-à-dire que quelqu'un qui a trente-quatre ans peut déposer sa candidature à la présidence. mais mais. jouru élection yi. na ko fekk mu na fekk mu am. 35 ans mhm. xam nga loolu dañ ko wax c'est c'est cité dans la constitution. waa léegi exclusivité de la nationalité sénégalaise. Mhm. waxuñ ci loolu. waxuñu ci dañ ko wax nii rek. Mhm. mais waxuñu kii bu kañ la. parce que tey conseil constitutionnel tamit il faut que ñu nangul leen dara. aujourd'hui ils sont pas outillés parce que kenn ko double nationalité mën nga am bu Mauritanie bu Gambie bu Chine bu. ils ne sont pas outillés pour vérifier tout ça d'où la déclaration sur l'honneur oui. et ils prennent acte par rapport à ça mhm. maintenant si on léegi nag waa PDS ci loolu lañ ko ne Karim effectivement moom ba muy déposé renoncé na à sa à sa à sa nationalité euh, française et que avant que conseil constitutionnel di délibérer indi nañ preuve bi loolu c'est c'est juridique loolu man vraiment sama xam-xam soriwul ci je suis pas un constitutionnaliste mais am naa xel moo mën a may dara